wala micro. mais Aba. yaa doon sànni butéel yi waaw borom butéel yi borom kees bi borom micro bi. kon nag won ko soutien tout le soutien bi nga xamante ni soxla na ko di leen remercier ci seen parce que parce que ñoom ànd ak ñoom ba tribunal verdict bi daal di def si nag am na noonu c'est tous c'est le premier verdict qui confirme sur le procès en appel de Barthélémy Dias honorable député qui reçoit chez lui les députés et maires pour leur dire un grand merci pour le soutien et la présence Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai un message. Euh, monsieur le Président, juste deux minutes. en très grande que je félicite d'abord parce Parce que nous sommes très fiers qu'il soit à l'Assemblée. Mais monsieur le maire, la jeunesse dakaroise, et je pense que je peux parler sur le compte de Bakéou Les gens ne sont pas mobilisés aujourd'hui parce que vous êtes le maire de Dakar. les gens se sont mobilisés parce que vous êtes un citoyen qui, à tout instant, quand le peuple a été en danger, vous êtes mobilisés pour que les gens puissent s'en sortir. Et je le dis en toute honnêteté et je le plus profond de nous. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, je ne pense pas que le président Sonko aurait été là. La dernière fois, j'ai eu une dispute avec une personne quand vous avez pris le ministre. Et j'ai dit, je reconnais aujourd'hui le camarade avec qui j'étais sur le terrain. Monsieur Guy Kesby, mon nom vous bien le payer. <laughs> Mais je vous dis que aujourd'hui, le message que nous lançons, c'est que vous nous représentez au niveau de l'Assemblée. je en la lutte des classes. Et pense que vous l'avez compris. Vous nous représentez en termes d'exemple. Vous avez parlé d'une loi que vous allez mettre en œuvre, mais n'oubliez pas la jeunesse qui vous regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, suis très fière de voir Abbas qui ne se laisse pas faire. Je pense que c'est lui qui m'a un peu avec mon troisième magistral. <laughs> Mais de vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là ne sont pas là parce que vous êtes le maire de Dakar. Mais ils sont là parce qu'à chaque fois que chacun d'entre eux a eu un besoin, vous avez été prêts. Et je parle parce que c'est deux, des gens qui ont travaillé Le maire Barthélémy Diaz, des fois, il a, un très fort caractère, mais c'est quelqu'un de généreux. La générosité, ce n'est pas le fait de prendre de sa poche et de donner à quelqu'un de, de l'argent. La générosité, c'est d'être présent, autant dans les bons moments que dans les moments les plus difficiles. Et mon camarade honorable député Abba May, Abba, qui pour moi est mon député de choix, il a eu à faire ce témoignage-là dans son bureau quand nous avons été deux. Et en conclusion, parce que ce n'est pas un, une rencontre politique, c'est pour vous dire que le soutien de tout un chacun, c'est un soutien sincère, c'est un soutien désintéressé, parce que nous savons que vous irez au bout des attentes que nous avons. Et autant vous irez au bout des attentes que nous avons, nous ñu ngi lay ñaanal fanal wér di ñaan yàlla aussi nga bañ leen may la possibilité ñu ñuy xañ le maire que nous avons vous êtes très, euh, euh très, très, très fougueux, mais pensez à ceux qui sont, je ne dirais pas derrière vous, mais qui sont avec vous. Parce que nous, nous croyons que la camaraderie, c'est le fait de se dire des le fait de résoudre des problèmes, mais le fait d'être présent pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et M. Sonko, Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire le mariage, là, l'imam. Mm-hmm. Mais <laughs> en réalité, euh, monsieur le maire. suis dans la On vous a tout à l'heure mi ngi lay tooñ naan la borom kees gi alors tey ñu fi fii au sortir du procès euh, qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais. Euh, tey bésu naxar la euh, comme yeneen naxar yi ñu am yi Sénégalais yi depuis ak président Macky gàcce la comme ni ñu amee yeneen gàcce askan bi am yeneen gàcce depuis euh, tey on a assisté à un de justice on a assisté à une parodie de justice li am tey day firndeel li ñu yàgg xeex muy kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci senegal ci fànn yu bëri rawatina ci yoon rawatina ci justice moo àndee ak Macky Sall dara du la dal loo munti def dara du la si fekk waaye boo nekkee koo xam ne day défendre njëriñu askanu Sénégal et de manière intransigeante te loolu mooy marque de fabrique ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire député monsieur le député maire Barthélémy Diaz eh bien bu boobaa euh, justice dina la tongali bu boobaa gendarmerie dina la tongali bu boobaa euh, dinañ def yëpp pour nga bañ a nekk maire bu boobaa même boo nekkee maire ñu continuer euh, dina la buntu xatal lu ëpp juróom fukki nit bokk ci sa cabinet ak ñoom seen ñu bloqué seen salaire lii mooy euh, ndumbelaan bi nga xam ne euh, noonu la président Macky Sall transformé suñu réew muy Sénégal or dama koy faral di fàttali le projet c'était un peuple un but une fois et non deux peuples deux fois deux peuples mooy benn peuple boo xam ne lu ko neex def sàcc xaalisu askan bi këpp kees randal rey nit torturer ay nit ba ñu dee sàcc suufu askan bi du mujj fenn président Macky Sall jël concom teg ko ci dossier teg ko ci li nga xam ne moom mooy loosu justice mais boo nekkee un patriote un patriote authentique comme Barthélémy yow mënoo am jàmm say mbokk mënuñu am jàmm say xarit mënuñu am jàmm ñi ngay àndal ci wàllu politique say collaborateur duñu am jàmm donc li xew tey bettuñu je crois que ku yeewu tey Sénégal nga gis Auchan yi tëj ay auto gendarmerie garé fa fii rek ci koñ bi waaw tu as l'impression que gendarme yu nekk Sénégal yépp ñu ngi autour de la maison ñu ngi ci biir quartier ku yeewu tey ce matin gis réew mi ni mu tëddee ak gendarme yi ni ñu nekkee ci mbedd bi waroon nga comprendre ne li nga xam ne mooy décision bi na doon daal parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation lu dul ne député yi dañu ànd ak ki nga xam ne mooy seen naataango monsieur le député maire Barthélémy Dias donc on s'attendait un peu à cette décision euh, nous ne sommes pas surpris mais nous sommes tout de même choqués comme nous chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit comme nous constatons à chaque fois que euh, le président Macky Sall moom mooy manipuler exécutif bëgg manipuler législatif di manipuler euh, le judiciaire loolu nag mooy combat wu Barthélémy Diaz mooy suñu combat ñun ñëpp nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité mais sans réserve totale à notre camarade à notre frère à notre maire à notre député euh, Barthélémy Diaz et la lutte va continuer la lutte va continuer parce que bu fekkee dañoo xalaat ne lii moo ñu tax a dellu ginnaaw eh bien le président Macky Sall qu'il sache que il est en train de se foutre le doigt dans l'œil mais jusqu'au coude la lutte va continuer Barthélémy Diaz va rester debout, Barthélémy Diaz vaincra. La lutte va continuer, les patriotes vont rester debout, les patriotes vont se battre, les patriotes euh, vaincront. Euh, comme Nico Barthélémy Diaz doit ça fait 10 ans que nous résistons, ça fait 10 ans que nous nous battons, ça fait 10 ans que nous, que nous faisons face. Depuis quelques mois, le rapport de force a changé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons flancher. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lever le drapeau blanc. La lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays la change, ce continent la change, la justice change. Voilà, l'exécutif change, l'Assemblée nationale va changer. Et ça sera par la force, il n'y a pas de choix. Il Donc que tout le monde reste mobilisé. Que tout le parce que oui, nous sommes les premiers boucliers de Barthélemy Diaz. Nous sommes les premiers boucliers de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique. Je vous remercie. Merci